jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu comme ni ngeen ko gisee rek tey ñoo ngi fii nii ci Grand Dakar fi nga xamante ni uh, fi la coowal uh, taalibe yi xew woon démb fi nga xamante ni foofu la ñu gëtamee taalibe yi yóbbu leen par la force fi nga xamante ni uh, foofu lañ doon dóoree ki nga xamante ni moom moo di sëriñu daara bi nettali nag ca gémminu borom la dàkkee moo ngi nii toog ñun ñu ñëwaat lekk ci li nga xamante ni moom moo xewoon ak naka la demee ziar naa la sëriñ bi. waaw dalal nañ la jaar Oustaz Taha Niang la euh, xaadimul quran fi madrasati Seydina Ousmane Bun Affan nekk fii ci Grand Dakar ci daara ji di fi jaamu yàlla ci euh, ndongo yi nga xam ne yàlla moo leen teg ci suñu loxo ci ndigalu tamit suñuy kilifa ci suñuy waajur ak ñi nga xam ne ñooy waajuru ndongo yi muy ndond loo xam ne ñu ngi ko dondee ci sëriñ bi nga xam ne moo ñu jàngal alquran fii nga xam ne fii ñu toog fi lañ jàngee alquran ñun ba yàlla dogal ñu wattu ko ci wattu bu rafet yàlla dogal tamit suñu sëriñ wàcc liggéey ñu jël daara ji teg ko ci suñu loxo waaye ñu xamal sénégalais avant ñuy teg daara ji ci suñu loxo bépp opportunité bu doon nit doon am pour am àdduna amoon naa opportunité yooyu parce que ku ouvert laa woon ci àdduna waaye alquran boo say mbokk say kilifa ñëpp ne la da ñëw toog ci daara ji yore ko nooy man di def rek mooy topp ndigal parce que ñun jolof jolof loolu la ñu yoree ah, ñu toog fi démb nag ci daara ji suñu sëriñ bi nga xam ne moo ñu jàngal suñu sëriñ sëriñ Maxtaar Ñang ñu ngi ñaan yàlla yàlla doolu ko yërmande ñi ñëpp xam nañ ko ñoom ñoo bokk génération sama ñoom nijaay kenn gën mënu ko ci jàngale alquran ñaareel bi sëñ Hadi Touré mel ni mi ñu xam faas alxuraan ju rafet jim yor doon ci liggéey liggéey bu rafet ci anamiin yu rafet moom moo ko jàngal kooku moo ñu jàngal suñu mag jële toog mën naa wax ne samay waajur njaboot gi mu am yëpp moo leen jàngal alxuraan bañ mokkal ñu ngi koy ñaanal moom bi mu joxee daara ji nag yàlla dogal li dal ñu ñu koy sant yàlla nag alhamdulilah parce que liggéeyu lislaam toolu xare la boo xam ne mag ñi fi nekkoon ñëpp mi maam borom Touba dund na lu raw li ma dund. maam Cheikh Seydi Hadji Malick maam Omar Foutiyou ñoom ñëpp dund nañ lu nekk ci xeexu tubaab bi seen dund euh, ci feder boog yi ci aju ba daaray Ahmed Xaali Fall bu Pire ñoom ñoo ta ñoo ko taal man li ma métti nag mooy ñooñu ay nit ñu xonq lañu ñu gis leen ñu doon ay tubaab léegi nag ñun ñiy taal suñuy daara ay sénégalais lañ kom ñun ñiy jàpp suñuy xale ay sénégalais lañ comme ñun. ñuy tëj suñuy daara ay sénégalais lañ comme ñun ñi ma def nii ay sénégalais lañ comme man ñi nga xam ne ñooy liggéey lii muy waa ñu euh, euh, directeur protection des enfants ñu xam ko muy Ñoxabaay Diouf ñun ñu xam ko bu baax liggéey bii mu nga xam ne moom la attaqué def ko CDPE collecte ay mbooloo mbooloo yu mu yóbboo yëpp ay mbooloo tappale la te maa ngi wax sénégalais lii du jàll parce que lu leen yàq gi jaral. ñun defar gi jaral nañu lu ko ëpp. bu ko defee nag li xew démb fii laa toog yor sama kurus fi ngeen ma fekk ma toog nii fi laa yor sama kurus xale yi samay xale daw ñëw na ma am na ay taalibe yu ñu jàpp biñ ne ma jàpp nañ taalibe yi maa ngi leen ñu jàpp ñu ne ma xale yi daa sëñ daam ñang mais moom lañ jàpp ay xaleem sëñ daam ñang sama doomu bàjjan la sama cousin la ah bi ma jógee fekk ko fa gaay mi wax ak ñoom wax ci xaw a tàng am keneen ku fa nekk di arrangé ma ànd xale yi ne nañ leen dem ñu mag ñi yàlla dafa dogal sax heureusement xale yu mag yi nga xam ne dañoo liggéey waaye bu fekkoon xale yu mag ñëpp maanaam kenn du laal man ñoom la ñuy ñoom la ñuy gis. bi may dem tamit man dama civilu comme ni nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo indi kaar bi chauffeur bi nga xam ne ma yoroon kaar bi dafa civilu te man dama jàppoon moom mooy chauffeur bi. ñu fekk leen fa ñu ma leen bàyyi leen xale yi ñu ne ci quelle la ñuy bàyyi xale yi ma leen ñii suñuy dong lañ ñun yàgg nañ ci daara ji xam nañ daara ji xam nañ la nekk ñi ay taalibe lañ ñu ne duñ leen bàyyi te xale yi ñu ngi leen jàppee ci door ko daara ji tuuti rek ah léegi benn xale bu mag ñëw dem ci alkaat na ko bàyyi leen xale da ngeen leen bàyyi ci nii wala ci ne xale yi tàng police bi poñe ko commencé di ko dóor dóor yu métti nag moom taalibe bi ci boppam ma intervenir seen diggante waa ji boole ma ci ma taxaw mu dóor ñun nag yàlla dogal na ay sëñ daara lañ mais ay boy town lañ fii lañ yoroo xam nañ ci dëkk bi lu bëri parce que fii lañ jàngee Grand Dakar ku fi jàngee xam fi yoroo biir tey ba doo doon ngaaka doo doon vaurien tamit ma jàmmaarloo ñoom ñoom ñu sot ma ay ponkal seen pistolet sama bopp bi lañ ko bëggoon a dóor dóor ma ko fii seeni monat seeni liif wër ma këdd ma ba ma tëdd seen biir ñu may dóor xanaa ab agresseur sax ab sàcc wala ku tooñ kenn waru ko def noonu loolu muy lu métti loo xam ne Sénégal sénégalais yi yi nga xam ne ñoo opté yor daara ñoom ñoo ko opté parce que daara bi mu fi ñëwee 1960 depuis indépendance ba léegi nga xam ne junni at daara nekk na ko fi école française bi nekku fi woon bi mu fi nekkee ba léegi sénégalais ñoo leen yor yaayu daara la ñuy dégg waaye nag ñu ngi ñaan président mu doon suñ baayu daara parce que actuellement daara soxla na baayu daara. ñu ngi ñaan kilifa yi ñu doon suñu bàyyi daara comme ni ko Cheikh Hadji Abdou Aziz Dabakh nekkee woon lii ñu ma def nii nag nee nañ histoire Sénégal moo koy door a bind suñ daara buñ dóor ba tuur deretam lu ne xaj na ci lu ne xaj na ci waaw ñëwaatoon nañ sax pour jël si ma nag waaye bi ñëwee mm, fekk maa ngi dem hôpital bu faju ji maa faj sama bopp maa def li nga xam ne moom la ma duraa may yëpp xam naa ko def naa ko toog di leen déglu bu ko defee ñoom gendarme yooyu police yi yi nañ jàpp na sëñ daara yi duñ ay ivoirien ñu ay citoyen lañ élection bu jotee dañuy voté élection bu jotee dañuy voté suñ carte d'identité nationale sénégalais fii la nekk dañuy fay suñuy lempo lu ta lu nit di fay ci réew mi ñu dañ koy fay ci ay taxes lii nag dafa ñaaw maa ngi koy ñaawlu mboolem monde bi àdduna bi ñëpp nga koy ñaawlu. sama sëriñ bi nga xam ne moo ma jox sama tarixa mi sëriñ Babacar Sy Mansour maa ngi koy jottali message bi na ko du man dong lañu def lii barki démb Casamance xale yi ci stade bi lañ leen jël comme ay xar wana naa leen am na si benn chaîne bu ma leen seetaan ñu ne ñu ngi leen évacuer di leen delloo fan lañ jëm ñun sénégalais yi ak état bii ndax ñun suñ président bi moom ñun la ñun la jiite wala ñeneen la jiite. kon nag li ñu wax rek mooy lancer appel euh, volonté bonne volonté yi muy sénégalais yi nga xam ne ñoo bëgg daara ñoom dañu faa daara xale bu génn ñu am lu leen jox ñu indi seen sëriñ ñu jàng te fii mu fii ñu toll ci daara ji nii am na ci ay xale yoo xam ne génn nañ fi ñii am na ay chef d'entreprise yu génnee ci daara ji am na ñoo xam ne ay concours nationale dañ koy jël fii ci daara ji am na ci ñoo xam ne jàng nañ seen métier ba mokkal ko di liggéey boo demee ci marché bi fii HLM Sandaga ñoom ñoo fees del kon fii ay caaxaan nekk fi te daara yëpp noonu lañ mel. xam nañ ñiy caaxaan enfant dans la rue kuy génn ci mbedd mi di taxawaalu du yalwaan du def dara kooku mooy enfant dans la rue bu ko defee nag naka lañuy bàyyee élèves yi ñuy jàng ñu ne taalibe yi duñ jàng. mais comme li nga waxoon dañuy ñëwaat ci fee bi nga xamante ni euh, ci lañ la dóoree dóoraale taalibe bi yow dong la ñu gaañ wala taalibe boobu tamit gaañaale nañ ko. waaw taalibe bu mag bi dóor nañ ko ba gaañ ko beneen bi sëñ daara bi nga xam ne moom lañ jàpp ay xalem dóor nañ ko mbéj nañ ko dugal ko ci kaar bi yóbbu ko benn pëlis ci pëlis yi jege yi sëñ daara bi dañ ko monété aussi. est-ce que yell na sëñ daara boo xam ne te sëñ daara boobu ñu monété fii la jàngee moom it kooku ñu jàppoon fii la jàngee papaam moo ko jàngal waa ci liggéey ni ma jotee daara ñu joxe ko daara kon kooku lu ko lu leen yàq gi jaral ci gone yi defar gi jaral nañu lu ko ëpp waaw sëñ daara yëpp foofu lañ taxaw ñoom lu leen yàq gi jaral ci xale yi rek defar gi jaral nañu lu ëpp loolu parce que mag ñi duñ ñu defar bañ defaru ñoom ñu jàngal leen ay tubaab bañ gëm na ay tubaab lañ loolu moom ci gën a métti ñoom dañ leen a jàngal wàllu nasaraan bañ gëm na ay nasaraan ñu jël leen tubaab bi fay leen pour ñu xeex ak ñun ñun ñu jàngal ñu daara bañ gëm na ay nit daara lañ mën a sol suñu mbaxana sol suñu mbaxana yor suñuy kurus di jaamu yàlla di defar ay nit comme ni nga xam ne moom na ko sëñ Touba defee réussite ko maam Cheikh Seydi Hadj Malick def ko réussite ko maam Omar Fouti def ko réussite ko mag ñëpp def ko réussite ko ñun ñu bëgg liggéey boobu ñu ne duñ ko duñ ci daal lum leen jaral ci ñu bañ ñu defar xale yi ñun defar xale yi jaral nañu lu ëpp loolu te nag ñi ngi lancé appal xalifa généraux yi ñun ñoom lañ toogal fii ñoom ñoo waroon toog ci daara yi di jàngale te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al ulamaau warathatul anbiya yi boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi donnuñ ko ci donnuñ leen ci alal du kër yu rafet du jigéenu du jigéenu rafet du dëkkuwaay bu rafet du dàllu rafet du yëre bu rafet toog di jàngale mooy affaire bi toog di jàngale luñ doon ci ñoom ñii toog di jàngale nañu leen xalifa yu protéger parce que dimension spirituelle bi leen yàlla jox ëpp na doole loolu. dimension spirituelle bi leen yàlla jox ñoom xalifa yi bu ñu àddoo ci lii bu subaa mu fay. kon ñu gis ni sa bët bi xaw naa tuuru bu baax a baax ndax instant bi moom ko leen di jàkk rek xam ni euh, dóor nañ la bu baax a baax arme bi lañ la door ci sa bët bi. waaw xam naa dóor bi ma dóor moom dóoru baaba naar yi bi mu ne ma rëf dama daanu. aussi dañ ma tiim ñoom mbooloo ay ponkal munoo imaginer dóor moo bu ma tugg seen biir ñi di ma euh, kajjate sama ginnaaw gi fi mu toll nii mënu ma la woon mais këdd pistolet yi nu tudd liif yi ba pistolet bu ñu ma naroon a dëbb sama bopp bi léegi nag li ma bëgg mooy sénégalais yëpp nañ xam ne daara moo fi nekk. daara moo fi njëkk te moo fi mujj incha allah. am na ñu doon jéem a intervenir bañ lay tiim di la dóor euh, wala ñoom ñëpp dañoo taxawoon ndax euh, ragal homme de loi euh, parce que ñoom ay civil lañ man dóor nañ ma ba ma génn ba ñëw fii xanaa bi waa ji génnee monette ak pistolet laa xam ne ñi ay police lañ parce que dama jàpp na ñu doon jàpp ay xale lañ man mii bi may dem soo lu ma yëre sañ daar dama civilu comme ñoom. mais bu ñu ma dóoree ba pare lañ xam ne ki ñu doon man euh, daara yi nga xam ne ñoo yelwaan maay seen secrétaire général mooy daara madaarisul quraaniyatul asila daara yor police ci Sénégal yëpp nag maay seen secrétaire général kon combat bi combat daara la du combat sasa bi ñu fi ñëwee di wax dama leen man génn naa ci lii ñu ma def nii ak cant yàlla la waaw alhamdulilahi rabbi alamin lañ ciy wax waaye méttit lu ko nag devant tous les sénégalais devant le président waaw métti ko ba fa métti lu yem. parce que waruma xëy war a jàngale ñu toj sama bët waruma xëy di liggéey ci réew mi di jàngale xam-xam di jàngale alquran di yar nit ñi di leen tarbiya te fu nekk sénégalais ñi ma fay soxla ma leen wuyu bu ñu soxlaa seen tudd ma jiite leen di leen euh, demal seen soxlaa kaamil woo ma te looloo gën a tuuti xale yi ndaw yi ngay defaat ba ñu war a mel ni yow looloo ci ëpp fulla am na ñuy tudd loolu ci kaw sax mais xale yi nga xam ne yaa leen yor yor seen responsabilité. loolu ku la fekkul fa nga nekk remercier la accompagner la mesure accompagnement yi nga laaj ñu defal la ko daf la war a bàyyi ak sa euh, xam-xam bi nga bëgg ci xale yi ak sa particularité bi nga am parce que daara réalité yi mu am ku nekkul ci daara xamoo ko ku dundul daara xamoo réalité daara ñiy wax ci mbedd mi yëpp dañuy coow rek mais ñii nga xam ne ñoo dund daara boo bëggee xam daara demal nga laaj leen ko. waaw mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek démb xew-xew bi nga xamante ni moo amoon na ah, fii nii ci Grand Dakar sëriñ yi nga xamante ni maltraité woon nañ leen jël seen ay taalibe yóbbu ko mu nekk loo xamante ni nag askan bi yëpp nakarlu woon nañ ko mais police d'information dañoo ñëw toog ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ndey mbili gi ñu daal di ñuy wax fee naka la demee ak xale yi ci yan condition ah, lañ leen mais ba daal di leen di jëlee ci seen ay loxo ah, ziar naa la sëriñ bi. ñu ngi ziar. waaw salaam li ngi delloo ziar baax leen nuyu yéen ñëpp. Euh, comme li nga xamante ni moom moo fi xew démb moom moo waral suñu ay tànk ñu bëgg cee am yeneen leeral naka la demee ak affaire bi euh, nan lañ leen bettee avertiroon nañ leen am déet. waaw xam naa ne xew doon sax suñu daara ji waaye ci daara yi ki mu xewoon daanaka ñëg moom benn lañ ndax ña bokk lépp daal ña bokk lépp moom ay xalam yu ñu woon lañ. diggante 9h 10h ñu tase ak ñoom jàpp leen. mi leen jàppee nag moom dafa ñëwoon di leen laaj ba xam lu tax kii ngeen lu tax lii ngeen jàppale ak ku ngeen ànd ak ci loolu na ñoom nanguwuñ nanguwuñ leen a déglu daal moom nag mu ne xale yi duñ dem loolu moo leen jotale ak ñoom waaw. joxewuñ benn explication fan la ñuy jëmee ñoom ak ci yan ndigal la ñuy ñëwee di jël waaw ñoom niñ ñëwee niñ ñëwee ñoom nee nañ yalaamin la ñuy aaye fi ñu koy fi ñu yóbbu xale yi dañoo waxuñ ko moom waaye yalaamin la ñuy wax ne moom la ñuy waaw. sëriñ bi naka la def ba ñu jël ko teg ko loxo di ko dóor. waaw xam naa li ma la wax ni moom ba ñëwee dafa gis xale yi ci biir oto bi daal di ne moom xale yi kenn du leen yóbbu léegi nag loolu moo ko jotale ak ñoom loolu moo ko jotale ak ñoom bu ñu laaj fan ngeen fan ngeen yóbbu xale yi. waxuñ ko fan la fan la leen yóbbu sa njaboot nag fu mu nii buñ ko buñ ko buñ ko jëloon ñoo fekk sa njaboot kuñ ko mën a defe ni mu defoon doon ngay def ñoo jël si njaboot bëgg leen a force yóbbu leen nga laajte fan la leen yóbbu waxuñ la ko danga ne ñii kenn du leen yóbbu waaw loolu moom jot la ak ñoom. ñu gis ne jamono ji li ñuy dut baaraam daara yi bari na dañ naan daara yi nañ leen tas nañ jël xale yi yóbbu leen seen fami walla ñu jël daara yi yóbbu leen feneen euh, lan ngay wax ci loolu. tas daar ëpp leen doole rek tegu nga fenn kay ëpp leen doole rek loolu dong la kay ëpp leen doole rek daara ëpp leen daara kay képp koo xam ne dimbale woo daara ba fexee num jàngee defoo fa dara di war a fa am benn dogal moom bépp dogal boo fa boo fa def it jéem koo tas ak leen it sa doole nga yor rek waaye yoroo benn dëgg moom déedéet yoroo benn dëgg. est que dem seetu woon ngeen ba xam xale yi fan lañ leen yóbbu woon am am na ku ci toppoon wala nangu woon wu ñu woon kenn topp si. waaw xam nga topp bi moom doo ko mën topp bi comme yow yow mi ñëw yow mi ñëw mayoo mayuñ la yaa xeex ak ñoom nan nga ci toppee mun a ca topp di ki doon xeex ak ñoom ñoom ñaar ñoo fa nekkoon mun a topp ak ñoom. léegi la indiwaat xale yi. xale yi moom ñoom indiwuñ leen. ñoom indoo leen dafa am ku doon lijjanti lijjanti lijjanti rek ba indi leen xale yi 3 heures lañ ñëw 4 heures sax jot na bi ñu ñëw. Mhm. déedéet ngoon ngi waaw 16 heures waaw. Mhm. ziar naa la sëñ bi. waaw maa lay delloo ziar baax baax soxna si di la fay nuyoo bu baax. lan ngay wax ci li nga xamante ni moom moo fi xewoon démb. ah li ma ciy wax xew-xewu démb bi. xew-xewu démb bi xanaa ah, dama koy naqarlu rek naqarlu ko bu baax a baax xam na wax dëgg dañoo ëpp doole rek ci kaw loolu rek waaw ndax ñun amuñ lu may daara daara lañu yaakaar moom lañ amit nag waaw ndax joxuñu lu ñu dundee hmm? taalibe dañu ko jox ñoo koy jàngal léegi nag kooku tamit dañu fay luyaas dañu uti ndox fay courant lépp yor suñuy soxna kooku nag il faut taalibu yelwaan waaw. dañoo jàpp ne ak jamono bi toll euh, jàpp taalibe yi ñu yelwaan ñu bari dañoo jàpp ni exploitation la ñeneen ñi daal di jàpp ni warul ndax feebar bi alors ko ku xam taalibe xam ni taalibe bu yarwaan yelwaanul euh, du xam euh, dëgg-dëgg lan moo di jàngu alxuraan. waaw dëgg la soxna si li nga wax dëgg la xam nga feebar moom ñëpp xam nañ ne feebar moom doy na waar trop ndax Euh, feebar bi tax na lu bëree bëree wàññeeku ci ci doxalin yi mu de mu de yi njaay yi néegi yàlla yi lépp feebar wàññeeku na ci loolu waaye ndimit nag euh, sëñ daara bi nga xam ne maanaam taalibam day yalwaan nii neexu ko bu amoon loo xam ne mën na koo dundalee dafay toog jàngale baax a baax waaye nag daara dafa nekk loo xamante ne bii dafay yar nit te defar nit bari na ci senegal mag ñu baax ñépp ñu ngi fi gis ñëpp boo demee Njaasaan Tiwaawoon Tuuba kañ fay raamal di ko sukkal di ko siyaare ci daara la jaar teg nañ am comme na ko alaaj Abdourahmane rahmatullahi daan waxee kenn ko ne teg nañ àlliwoo sa lupp na la waxal baasin mii mara waaw loolu xam nañ ko ci ñu gis ni liñ leen di gëtëmal bari na du ñu toog lu yàgg te newuñu daara ji sëriñu daara yi euh, wala taalibe yi te tey ji senegal yi ñu ci baree bare bari ñoo ngi naqarlu fitna yi ñu leen di faral di leen teg rawatina li nga xamante ni moo xew démb. waaw li nga xam ni moo xaw a démb comme ma dellu ci li ma waxoon rek dama koy naqarlu baax a baax xam ne tamit dañu ëpp dal waaye nag ñun lépp ñu ngi koy di suñu borom ñaan ci yàlla yàlla mi xam mooy faj yàlla nañu ko yàlla yàlla nañu yàlla jox dundee njaboot gi nga xam ne moom la yàlla teg suñu loxo it yàlla jox ñu lu ñu dundee kii sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay waaw ñoo bokk ndey ak baay. démb fay ba muy am yaa ngi taxaw. déedéet man booba mm, bi mu am boo fekk mu fi wax dëgg dama demoon benn programme yàlla def man moom mii ñoo àndoon waaw li xew xew suñu gannaaw waaye bañ dikkee tamit ca lañ nekk nekk nekk ci ba timis ànd ak ñoom ci naqaru ak tiis yi waaw. est ñi nga xamante ne ñoo doon gérer daara bi prévenir nañu seen parent yi ba ñu yóbboo xale yi. waaw waaw waaw seen parents yëg nañ ko yëg nañ ko ndax xam nga léegi moom dara umpeetut ndax léegi dara umpeetut téléphone yaa ngi fi lépp a fi. ñoom ñoom ñooñu. ah ñoom seen parents yi. waa xam nga man bu man ñoom ñi nga xamante ñoom lañ téewoon seen parents jot mu naan téléphone waaye ñi nga xamante ne si euh, ñoo yor xale yi dañ téye seen xale maa ñoom ñoo bokk benn dëkk bokk fi dem benn quartier kenn ñoo bokk ñoo bokk benn kër ma ak moom néegam ak suma néeg ñoo jàkkaarloo waaw. Salut, je me nomme Serigne Mbake Bousso Mbake. Nous avons tous euh, vraiment vu euh, cet incident qui s'est produit hier Euh, au quartier de grande Dakar euh, des forces de l'ordre euh, qui étaient venues ici hier en train de se bagarrer avec un maître coranique ici à Taïba. Donc je pense que euh, ce que nous avons vu hier, c'est déplorable. Euh, les les maîtres coraniques du Sénégal euh, jouent un rôle important euh, au sein de la société. Donc, euh, vu euh, sous cet angle, ils euh, ne doivent pas être considérés et traités de la sorte. Donc, euh, ces dernières qui jouent un rôle important, qui encadrent, je pense que il y avait eu une bagarre, un bagarre, parce que les forces de l'ordre l'ont frappé. je pense que s'il ne l'avait pas frappé, dans ce cas, euh, ce maître coranique n'aurait pas agi de la sorte. Euh, donc aujourd'hui, ce que nous voyons euh, euh, au Sénégal et tout ce qui se passe, nos chefs religieux tels que Cheikh Ahmed Bamba, Cheikh Sidil Haji Malik, Baïnes ont été encadrés, ont, sont donc fait leur parcours d'études dans les écoles coraniques. Donc l'école coranique est aujourd'hui au Sénégal pour encadrer donc pour former des jeunes avant de, afin euh, donc de, de, de, leur faire des personnes bien capables donc de produire quelque sose dans la société. Donc euh, je pense que euh, nous voulons que ça cesse. À chaque fois, ils ont des problèmes avec euh, l'État, ne, ne, leur fait absolument rien. Euh, si vous allez au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, vous verrez que les étudiants sont mis dans de très bonnes conditions d'études. on leur donne à la fin du mois, on leur donne euh, les bourses. Hein? Donc les serindars, on leur donne absolument rien et on ne leur, on leur aide pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, euh, de faire Ils sont en train de leur, euh, de leur faire du mal. Ils sont en donc de les, euh, de, les frapper. je pense que ça, c'est déplorable. Les serindars ne méritent pas ça. Un serindar, c'est quelqu'un qui doit donner un bon exemple. Si aujourd'hui, on les frappe, on les maltraite. Je pense que ça, c'est déplorable et nous ne voulons pas que ce, ça, se produit, euh, ce n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder la vase euh, parce que euh, presque tous les mois, on entend un string d'ara qu'on malmène, qu'on amène en prison parce qu'il a fait quelque chose, qui est, chose dans un, dans un dara. Donc, je pense que tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est que les policiers, les forces de l'ordre ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas, ne maîtrisent pas leurs droits. Donc le rôle de la police, c'est quoi C'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est d'assurer la sécurité des personnes, mais euh, même euh, ils ne doivent pas lever leurs mains et essayer de frapper euh, euh maintenant la, la, population. Donc ce qu'ils doivent faire, c'est quoi Ils doivent encadrer, ils doivent assurer les personnes, ils doivent assurer leur sécurité. mais vraiment ils ne doivent pas <laughs> essayer de les, de, les mettre dans des, dans des conditions bizarres, hein, euh, même euh, aller jusqu'à même les frapper. Je pense que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ils ont, euh, les, y y a les Srindar, ils ne sont pas à l'aise. Ils les, euh, donc les disciples euh, qui sont dans, dans, la maison, mais ils ne sont pas à l'aise. C'est qu'est-ce qui fait ça C'est l'État qui est derrière cela. Et je pense que nous lançons un appel solennel à l'endroit du président de la République, qui est le chef suprême des armées, donc de d'apporter sa contribution parce que les maîtres coraniques ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui pour qu'il améliore les conditions de vie des Sénégalais, mais aussi apporter sa contribution pour aider les Sérindars à conduire et vraiment à véhiculer leur message. Euh, euh, c'est donc aujourd'hui Si vous allez au niveau de la police, les, les étudiants, euh, un policier, soit il est mourite, ou bien il est tidjan. Il, appartient même à des confréries. Donc, en policier, soit il est, euh, euh, il est, il est talibé de Serine Touba, soit il est talibé de Sayyid al-Hajj Malik, ou, ou il est talibé de Baynas. Donc, les forces de l'ordre ne sont pas des ennemis. il, y a, il, il doit avoir ce lien de fraternité entre les maîtres coraniques et, euh, et les forces de l'ordre parce que nous sommes tous des Sénégalais. Les maîtres coraniques et les, euh, donc, euh, et les talibés ne sont pas des étrangers. Ils ne sont pas venus donc, euh, de, de, de, la Côte d'Ivoire, hein, euh, donc dans les autres raisons, pour, pour venir ici au Sénégal. Ils sont des Sénégalais comme eux qui ont de la nationalité. Donc, on doit Il ne doit pas avoir cette discrimination. Ce que nous avons vu entre la dans la manière dont ils ont traité dans la société, si vous êtes quelqu'un, c'est un talibé. Non, un talibé, ça doit être quelqu'un qui porte des habits sales. Non, ça, ça ceux qui dirigent les prières mortières, hein? Hmm, si vous, euh, au niveau euh, des ménages, hein? des, des, mariages, qu'est-ce qu'ils qu qui vont vers leur intervention hein? On va appeler les maîtres coraniques et ces écoles, euh, ces écoles, ces maîtres coraniques-là, qu'on qu appelle euh, pour qu'ils fassent le, leur, intervention, ont été formés par par des, par, donc, euh, par des, par, euh, ont été formés à l'école coranique et ils ne sont pas été formés par moi qui vous parle actuellement. Je suis passé par l'école euh, coranique. J'ai fait tout mon parcours à l'école coranique. Après, je suis passé dans l'école française. Donc le daar a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Si nous sommes en train de parler aujourd'hui, étant l'un des, euh, donc, étant l'un des disciples, mais petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, on ne doit pas, on, on doit pas croiser les bras comme ça et dire non. Mais nous devons apporter et essayer de les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, si on ne les encourage pas vraiment, la société ne sera pas développée, la société ne sera pas bonne. Euh, kon ñoo ko déggandoo def nañu immersion ci euh, fi nga xamante ne fi la quartier taalibe yi euh, jóge nañ ci daara ñëwaat ci daara nag fii nii ñu nekkoon fi la affaire bi xew woon maître daara bi kenn du ngeen ko nettali gis ngeen ko niñ ko def gis ngeen bëtam bi nu mu tuuroo arme bi nga xamante ne jël nañ ko daal di ko koy dox ci bopp daal di ko koy dox ci bët nit ñi taxaw mënuñoo intervenir parce que ay forces de l'ordre ñoo taxaw taxaw ak seen ay ngàndaay jaay leen doole jël ay doomu jàmboo yóbbu leen ba heure bu leen neex ñu daal di leen di indiwaat gisandoo Sénégal yëpp daal di ciy teg seen batt ñoom nag tooguñu croiser les bras euh, xam nañu seen ay droit en tant que citoyen te dinañ ko topp bu soobee yàlla ba lu leen ci yoon rek may waaye ñu doon lancé benn message rek euh, ki nga xamante ni moom moo di njiitum réew gi euh, di leen rappeler que ni maître coranique ni maître bi di jàngalee ci école ba français ñoom tamit noonu la ñu toogee di jàngale alxuraan ndax dañoo nekk ci pays boo xamante ni quatre-vingt-dix pour cent musulman taxaw nañu nag tooñuñu benn sëriñ daara nañ mais nañ la ñu tooñandoo di ñaan yàlla rek mu daal di fii gëj jox leen dig daje ba beneen yoon